li ñu li tax li am solo rek mooy ay point yu ndaw yu ñuy souligner pour bàyyi la ko xel Sénégalais yi c'est très important xam nga ñu xam ko quoi. mooy di ne actuellement fi mu toll nii Sénégal dafa toll ci Sénégalais yi parce que sëñ Abdou Lahad day wax mu ne mooy nit bu ñu la tegee bant jugal taxaw ba ñu xam ne doo bant ko toogaat. Macky Sall dafa ñu teg bant quoi te jot nañu jug taxaw xamal ko ni du ñu bant quoi léegi c'est très important dafa am lu am solo boo xam ne dama bëgg Sénégalais yi xam ko mooy ñun ñoom dañ ne ñun dañoo bëgg taal dëkk bi. te contrairement li am mooy ñoom ñoo bëgg taal dëkk bi ñoom ñoo bëgg taal dëkk bi te na ko kilifa diine kilifa aada sunu yaay yi ak sunu sër yi ak ñëpp xam ni ñun juguñu pour daal dëkk bi ñoom ñoo bëgg taal dëkk bi naka la ñu bëggee taal dëkk bi mooy ay 4 heures du matin di jàpp ñu ngi seen kër ay 2 heures du matin ci loo xam teguñu ko fenn Macky Sall nag jaay doole la nekk di def ku fi wax lu waxoon da ngay répété waat même wax yi rek quoi li ñu wax mooy askanu Sénégal la ñuy on fait appel ñëpp nag ne ko kilifa diine yi dégg na ko ñëpp dégg ñun on sa laissera pas on se pas faire du ñu bàyyi Macky Sall jël ñu bëgg ñu piétiner bëgg yor réew mi yor ko nu mu ko neexee def lu ko neex li mu jàppee ñëpp di indi coow yëpp wax naa ko fi keroog Aliou Dunguru Sow dafa taxaw en tant que tukulóor di làkk en tukulóor ne carrément ne troisième mandat nguur bu ko xasee ba téye da nga cee langaamu képp ku la ko ndara xañ nga génnee jaas yi dal ci kaw député la dara fekk ko si dara fekk ko si tey li ñuy toppee euh, Ousmane Sonko nii yëpp ñëpp xam nañ lan la duñ ci nekk ci détail yooyu quoi mais dama bëgg peuple xam peuple sénégalais bi xam ni suba insha allahu rabbi nous le peuple collectif citoyen le peuple dañuy dem topp procédure normale yi xamal ko mag ñi ndax dañuy suivre xamal ko sëriñ si xamal ko sunu yaay dañ ay kilifa lañ ay responsable dañuy dem préfecture déposer demande benn déclaration pour manifestation place de l'indépendance lañ jëm fa la ñuy defee manifestation samedi samedi la ñuy def manifestation place suba la ñuy dugal déclaration bi dañ koy dugal parce que dañuy topp procédure yi parce que constitution Sénégal moo ñu autorisé ñun bu ñu amee lu ñu naqari ñu manifester léegi nag yoon dafa wax mu ne am réew ay texte moo leen boole maanaam charte nday réew mooy constitution wu Sénégal maanaam mooy norme yi ñuy doxee norme yooyu noonu bu fekkee ni réew ma njiite ak réew ma ak population ba seen njiite respecté wuñu norme yi leen boole devoir la ci askan wi ñu jóg foqati pouvoir bi te Macky Sall duñ ko bàyyee noonu te dama wax benn na leer moo fait appel à, cette population pacifiquement kuy ñëw indi sa gel antiseptique parce que Macky Sall seytaane la te ay seytaane la àndal kuy ñëw indaale sa masque na ko seen yëpp dégg wowuñu fenn fitna mais nag ñoom luñ ci ci bañ lu ñu baax ñu ngeer ko dinañ ko teg ci yoon doxal ko ni ñu ko waree doxalee ci yoon luñ ci lu ñu baax ñu ngeer ko donc na ko Sénégal yëpp xam Guy Marius Sagna dafa am jabar ami doom Sénégalais yi toog seen kër yéen laay waxal yéen yi may yi di wax ku ne di woqante Guy Marius Sagna dafa am liggéeyam am jabaram ami am ay doom yu ndaw yu am 4 ans man ko am man kii daa am këram am liggéeyam Dame Mbodj dafa am liggéeyam quoi ñun bu ñu toog ci média yi di wax ni du parce dafa ñu neex mais ce pays là li fi nekk yëpp ñëpp lay dal fii ngeen gisee ci nguur Macky Sall ministre ministre de l'environnement boo xam ni braconnier la braconnier léegi nag jot na ngeen xam ni jug dafa jot xam ngeen ni bu baax place de l'indépendance ku fay dugal déclaration xam ngeen li may bëgg a wax donc kon nag na ko na ko sëriñ si xam na ko ñëpp xam suba 10 heures incha allahu rabbi le peuple dina dem dugal déclaration préfecture pour samedi incha allahu rabbi ñu woo toute la population sénégalaise kuy xeex góor jigéen Macky Sall da koy dooleel kuy xeex daara alxuraan yi Macky Sall da koy dooleel day xeex daara alxuraan yi kuy képp koo xam ne gëm nga ni Sénégal xale yi dañu war a jàng gëm nga ni dañu am war a presse bi liberté d'expression dafa am dafa am dañu war a wax mënoo ñu privé suñu lépp privé ñu suñu liberté d'expression léegi doyadi boobu ak ñàkk fayda boobu nag ñun on fera face à sa donc ñu ngi woo ñëpp samedi incha allah 10 heures place de l'indépendance képp ku a ñëw na nga teew baax na soxlawul ay groupe di ñëw dugal ci ñëw jarul tàggoo jël leen taxi nañ daje foofu 10 heures ñu ñëpp ñu ngi fa suba dinañ dugal demande déclaration bi